la mu ñaan bu Ngaabu bismillah wa na diggan Siteu mbokk yi Siteu bu Ngaabu mi ngi arrière dox ci kaw Siteu sànni na gauche Siteu bu Ngaabu Ngaabu fils de Doudou Sané mbokk yi mbokk yi Siteu bu Ngaabu fils de Doudou Sané tey la tey bu gaaw la baa bu Ngaabu cokkaas door na ba Doudou door na door na fils de Doudou Sané door na Siteu bu Ngaabu fils de Doudou Sané dugal na ko ay coup yu dal na ko ay Touba Njaareem ay Njaareem Dakar ay Kaolack Ziguinchor lii kenn mësu koo dégg <laughs> maa lii tay tay Siteu bu Ngaabu daa mel ne xeex bi daa des waaye fils de Doudou Sané ma dox ci kawam mayatu ko jàmm ndax xam na ni hypercule yi ko dugal am na lu mu wàññi ci moom waaye Siteu bu Ngaabu mi ngi def cekk di arrière est-ce que Siteu Ngaabu li mu teg du stratégie cay lamb Fils de Doudou Sané door na Siteu Ngaabu ndeysaan bi combat Ngaabu waaye Doudou Sané may ko mu noyyi ma koy dugalati ay ku ma ngi taj taj ji ngi koy dégg ma ngi koy dugal ay coup ma ngi koy dugal ay coup duudoo ngay dóor Doudou Sané ey Doudou Sané dugal na ay coup la ilaha illallah Doudou Sané man alaaji buur géwél mbay mbaay ma ci fay duma bëre man dama ragal kurpañ man ñemewuma kurpañ Siteu bu Ngaabu fils de Doudou Sané ah Doudou Sané daan na Siteu bu Ngaabu daan na Siteu bu Ngaabu Doudou